asalaamaaleykum bokki njàmbur ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam njàmbur nag dëkku bañkat lañu mais surtout dëkku ñu xam seen bopp lañu ñaari caractéristique moo fi am njàmbur dëkku émigration la soo demee Italie soo demee France soo demee Espagne njàmbur njàmbur yaa nga fa mais doon ñu am fulla ñu am fayda mais surtout ñu am jom vous êtes le quatrième instrument pour construire le développement du Sénégal il faudra que ñu boole leen parce que yàlla may na leen savoir fair ñu yaakaar ne di ngeen ko indi fii pour participer ci développement réew mi yéen a ngi dimbale askan wi su Sénégal amul révolte yéen a tax presque 1600 milliards ngeen di yónnee par at autant sinon plus que les partenaires techniques financiers yi li ñuy dugal ci Sénégal li ñu bëgg léegi mooy na diaspora bi doon un instrument d'investissement il faut que ngeen def un fonds d'investissement à partir de li ngeen am en tout cas Khalifa Sall président de la République du yem rek ci toppatoo leen affaire u këyit ak ngeen importer oto dañu bëgg seen xam-xam ak seen mën-mën ngeen ñëw fii ci mbay meeg sàmm geeg napp bi ñuy defaraat ngeen dindi ci seen wàll mën ngeen ko xam ngeen ko yéene ngeen ñu ko ñu ngi koy sàkku ci yéen njàmbur am beneen caractéristique dëkku diine ak ay daara yu bare bare bari bari macha allah bari sëriñ yu bari daara ñépp xam nañ ni muy jënd li muy wund pour am xam-xam la mais daara dafa war évoluer parce que ñun ñëpp ay doomi daara lañu li daara di accueillir ci xale moo ëpp li école primaire yi di euh, accueillir ci xale xale yooyu suñ leen jàngalee diine ba pare nañ ci boole léegi jàngal leen métier en tout cas man loolu laay ñaan ci suma kilifa ak jur yi may tase lépp daara ji mën na jàngale diine. mais ku fa génne war nga am métier mën na doon informatique mën na doon menuisier mën na doon mécanicien de sorte sorte que xale bi su génnee day am métier en tout cas Khalifa président la République dana fexe ba njaaku njàmbur do yokk yokku njàmbur jolli waa njàmbur gis seen bokk ci développement Sénégal maa ngi leen gërëm leen sax